di am ay résultats yu baax nekkoon ñu liggéey nag au bout wala à côté y a un de bourse kër que bourse excellence am solo ñun soo gisee ñu teg sur fii. c'est pour compétition bi au niveau école yokk parce xale yi bu leen duggee ci compétition bi seen niveau day naturellement parce ku ci nekk dana naan Moussa mii moo bokkal classe du ma bàyyi mu raw donc lu bon bon di nga fexe ba def sa kett lay kàttan pour yokk sa niveau boo yokkee sa niveau nag ah yokk nga résultat école bi parce que bu fekkee ni góorgóorlu woo yow it nga daan am bu ngeen demee bàq wala mais wut ko jàpp boo yokkee sa niveau lu bon bon di nga te bu ngeen amee 10 ci résultat examen wu bac bi dinañ la affiché comme donc résultat école bi day yokk résultat bi zone bi yokk résultat commune ba yokk donc bu ñu waxee ne Tambol kat joxe na ay bourse te gis nañu résultat pour bi bu fekkee ni année bi 70 pour cent la ren mu am 80 pour cent sant Dangote ci li defal ñun élèves yi ndax dinañu jàppale suñu jàng nga xam ne suñuy waajur dinañ ko soxla te ñuy jaajëfal aussi ñuy yor wàllu santé bi parce que coronavirus mu ngi nekk suñu réew te ñu ngi soxla aussi ay soutien yoo xam ne dinañu jàppale pour ñu mën kaar daan ndax euh, santé wér-gu-yaram dafa am solo suñu dëkk instant yi te ñu ngi remercier Dangote bu baax ci lépp lu ñu defal ndax dina jàppale dëkk bi jàppale ñun ñëpp Sénégal élèves de fur et à mesure que ñu di ça da leen euh, permettre ñu mën continuer te ñu ñaanal que lim ñu may nii mu mën kaa continuer bourse yi mu continuer que mu a dem ba ay doublé de plus en plus ba ba mu ñëw ñun élèves